Bienvenue sur Salam Vision. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad di ñaan yàlla borom subhanahu wa taala mu jéggal ñu suñuy bàkkaar jéggal ñu suñu rëcc rëcc waaye xeetaluñu dimbaliñu ba ñuy sax di ko sopp waaye sax di ko wóolu waaye sax di ko bëgg di julli ci Seydina Muhammad mi nga xam ni fa tabarakallahu julli ci wamul partement mooy sangu-sang yi julli ci benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon te ku julli ci moom fukki yoon yàlla julli ci yow téeméeri yoon te ku julli ci yow téeméeri yoon yàlla julli ci yow junni yoon te ku julli ci moom junne yoon yàgg moom bu yoon xaamate mbàkkaar ma ba biir àjjana wa tabarakallahu di ñaan yàlla borom subhanahu wa taala yéen ko yàlla doolu sopp la moom rasulullah di ñaan yàlla borom subhanahu wa taala yéen yàlla ci léegu jàmm di nuyu di ziara suñu sëriñ sëriñ Babacar Sy Mansour ataala amruhu wa aydahu ko ñaanal yàlla yàlla doolu taxaw ko di ko ñaanal yàlla yàlla doolu dëgëral ko di ko ko ci liggéeyu maamam bi xam ne fa tabarakallah moom la sumb fa tabarakallah ñaanal ko ci yàlla rek yal na yàlla may ko gudd fan ba bis bi nga xam ne fa tabarakallah moom la ñuy inauguré jumaa ji mu jiite ko ci barke turandoom waaye barke sëriñam waaye tamit ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu di ziyaare xalifa général des mourides nasara di ko ñaanal moom it yal na yàlla doon guddal fanam noonu la ñuy nuyoo fa tabarakallahu xalifa général des xaadir yaa ca Njaasaan di sëriñ Cheikh Begaay Begaay konte di ko ñaan yàlla yàlla yàlla lu dëgëral ko ak mboolem xalifa ci kaw suuf fa tabarakallahu di nuyu xalifa Léona Niassène waaye tamit di nuyu fa tabarakallahu xalifa Medina Baye di nuyu fa tabarakallahu xalifa Thiénaba waaye di nuyu fa tabarakallahu xalifa Limaamu Laay ca Yoof di leen ñaanal yàlla yàlla doon di dëgëral leen yàlla yàlla doon di sàmm leen yàlla yàlla doon di wattu leen bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu fa tabarakallahu bi nga xam ne fa tabarakallahu moom moom seen wi titre di Salam Vision di sëriñ Sam Seck di taalibe sëriñ Cheikh di ko ñaar yàlla yàlla doon di dëgëral ko yàlla yàlla doon di wattu ko yàlla yàlla ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mboolem koo xam ne fa tabarakallahu yaay ànd nañu ci émission bi di al ilmu wa taalim di xam ak xàmme xam ak xamle ñu koy defee fii ci chaîne YouTube bi Salam Vision ci Bayane di ñaan yàlla mboolem téléspectateurs yi nga xam ñooy ànd ak ñun ci émission bi yàlla yàlla gën a dëgëral leen yéen yàlla gën a wattu leen ñoo ngi gis riposte yi fa tabarakallahu la baax na yàlla xul kenn dara fa tabarakallahu yéen yàlla defal mu mel ni kon tey fa tabarakallahu tey ñu ngi jullee suñu bindu tey jii di bindu Seydina Muhammad Seydina Muhammad lu mu wax yàlla moo ko wax mu mel ni kon fa tabarakallahu suñu bindu tey bi tey ñoo ngi jëm ci li yéen tamit sama xam waaye dañu ñëw ci nag benn xadis bi nga xam ne tabarakallahu ko solo ci Daylami mu solo ko ci an Umar tabarakallahu mu ni yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa ni al adlu xasanun nee na maanu lu baax la maanu lu rafet la ba xam ndax ñun léegi maanoot nañ léegi ba xam maan nañ suñuy bët ba xam maan nañ suñuy loxo ba xam maan nañ suñuy làmmiñ ba xam maan benn bu ne ci cër yooyu ba nit ki maanu na ci te yëpp boo ci boolee yëpp nag ñàkk maandu boobu la gën a bonee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa adalu xasanun nee na maandu lu baax la maandu lu rafet la kon jullit dafay maandu waaye nag walakin na waaye ci kilifa yi lu gën a rafet nee na maandu rafet na lool maandu baax na lool waaye loo gis lu baax am na ci ku gën a baax ñu ne Seydina Muhammad ci kër la gën a baax mu ne ci kilifa yi bu ne kilifa nag sëriñ si la bu nee kilifa nag ustaas si la bokk bu nee kilifa nag jëkkër ci la bokk yor bu nee kilifa nag président association si la bokk bu nee kilifa nag président daayira ci la bu nee kilifa nag président de si la bokk kon képp ku yilif daal rek war nga maanu ci li nga yilif ni nga ko war kon nit dafay maanu ci li mu yilif rawatina ko am ñaari soxna nga maanu seen diggante donte am nga ko ci bëgg nan ngay maandoo seen de mooy kenn ku ne li mu am ci yow kenn ku ne xaq li mu am ci yow jox ko ko wala Seydina Muhammad ni ala adalu xasanun waaye nag wala kay a umaraay axsanun nee naa maandoo rafet na lool waaye nag ñuy gën a rafet ci ñi nga xam ne farabarakallaahu ñoom ñooy kilifa yi kon nit lu sa doom moomul bu ko laal lu sa yoon nekkul bu ci wax lu sa bët war koo xool bu ko xool lu sa nopp war a déglu bu ko déglu waaye nekk nañoo maanu maanu goo xam ne. day gis nit sax di dugg biir kër nit du ñu xam lan moo ko fay dugal ñuy lijjanti lan moo ko fay dugal ndax ñàkk maamu nit boo ko séenee muy dox maandu ci moom ren fa la dégg wax naa xamul ee nga koy nit nag di nga jéem a dugg ci mbirum nag ba lëj am yoo xam ne kenn du leen lijjanti boo leen lijjantee rek lëj kon nag nit dafay maandu ndax Seydina Muhammad moo ñu ko jàngal nee na jullit dafay maandu waaye nag maandu bi gën ci maandu yi mooy xasanun walakin fil agniyaayi nee na tabe rafet na lool maye baax na lool maye jekk na lool waaye ci gën ci gën a gën jekk bu sawa mu ne ki nga xam ne yàlla may na ko ba mu mën a maye xam nga ko amul tamit mën ne ko mu ñu ko tabe baax na ci yow koy rek waaye ki am la Seydina Muhammad moo tax ñuy wax nee ki am dimbalil ñu amul yow yàlla mooy fukki dërëm xaaj ko jox ci jullit yàlla yi yàlla mi nga xaj ñooñu moom la ngaa xam kon yàlla bu la joxee war ngaa jox ñi nga xam ni yaa ngi ëppale ba tax mu ne al saxaaw xasanun waaye walakin nag fil aghniyaai ahsanun na tabe baax na lool tabe rafet na lool mën a joxe baax na lool waaye ci kën la gën a rafet na Seydina Muhammad mu ne ki nga xam ne yàlla may ko kooku yàlla may kooku moo gën a rafet mu war a mën a joxe ki nga xam ni yàlla may ko mu teg ci ni al wararu xasanun walakin fil ulamaay ahsanun nee na sàmm lu rafet la al wararu mooy sàmm nee na lu rafet la waaye ci gën ci ñenn gën a rafet ci moom xam-xam yi yow mi naan njaala xaraam na bu la fekk ci xale jigéen yi yow mi naan njaala xaraam na jox xale bu jigéen loxo yow lekk la xaraam xaraam na bu lekk xaasu kàkk yow mi naan xaas lekk bu xaraam na bu lekk xaas boo xam ne yàlla gërëm ko kon yow nii na nee na yow ci yow la sàmm gën a wax lépp lu yàlla gërëmul moytu ko lépp lu yàlla gërëmul nee na sàmm lu rafet la waaye ci ka gën la gën a rafet moo ci borom xam-xam yi ki xam ak ki xamul du ñu yem waaye da ngay xoolee jamono ji léegi ñi xamul sax ñoo gën a sàmm ñi xam moo tax mooy nag wala kii fi waxee ma ahsanu nag waaye nag ci borom xam-xam yi la gën a rafet mu tëj ci ni asabru xasanun walakin nag fil fuqaraa yi nee na muñ lu rafet la waaye ci kën la gën a rafet ci ku ñàkk kon ko ku am kay ku am kay ku am kay du du du muñ ku feebarul kay du muñ. ku ñàkk kee du mën kon li ñuy wax mën mooy ki feebar ki yàlla xañ war ma xañ nga am war a am wér mu xañ la wér nga war a am juróomi dërëm mu xañ la ko nga war a am suukar mu xañ la ko nga war a am ceeb mu xañ la ko borom subhanahu wa taala na boo muñee nga xam ne inna allaha maa sabirina soo muñee ma fekkal ko jël la ko waaye soo muñul ma gën la kaa dolli ndax yàlla mooy nattu jaam yi wala Seydina ni muñ lu rafet la waaye ci kër la gën a rafet Seydina mu ne ki nga xam ne dafa ñàkk kooku la gën a rafet ci mu mun mu na jéggalu lu rafet nee na tuub jëm lu rafet la waaye ci ku gën a rafet mooy ndaw li nga xam ni tool na ci am kattan àdduna soxla ko dunia soxla ko laaxira soxla ko yàlla soxla ko ak iblis soxla ko kooku nag la gën soxla woon nag muy tuub di delloo borom subhaanahu wa taala di delloo xelam ci borom subhaanahu wa taala di bàyyi xelam ci borom subhaanahu wa taala nee na tuub baax na tuub baax na nit ki fu mu tuubee baax na ndax wastaxfiruhu innahu kaana tawaaban waaye na nga ci ndaw di jëf di jëf jëfu àdduna nga teg fa lépp foo yaa ngi jégul yàlla def say istigfaar def say laa ilaha illa allah def say sàbbal bàyyi xel yàlla ndaw ndaw boobu la yàlla gën a bàyyi xel man ma koy jaam wala seydna Muhammad ni tuub lu rafet la waaye ci ku mu a mooy ki nga xam la mu ne alxayaaw xasanun waaye walakin fi nisaay ahsanun nee na kersa lu rafet la lu baax la ci ci jigéen nag waaye nag ci kën la mu ne ci jigéen jigéen day am kersa jigéen day am kersa waaye am amoo kersa yuux ci mbedd yi wax ci mbedd yi say ramu nen rajo moo ci jigéen nag la gën a rafetee ndax jigéen liñ koy laytaayale jigéen li koy muccal jigéen li koy sauvé mooy kersa boo amul kersa rek fa tabaarakallaahu da ngay neex ren di te boo leen lay saani seeraas kon fa tabaarakallaahu ñu bàyyi ci xel nag xam ni jigéen li koy mooy kersa buy sëggam nay sëgg buy wax na waxee nang waaye booy wax ak ñëpp xam ne yaa ngi wax booy xool ñëpp xam ne yaa ngi xool te léegi xale jigéen ñi léegi amatuñu ndoxu bët dañ leen jàkk yow ni si di la jàkk waaye di la jërë ji yow ni ci la jërë ji di la wane tey soo ma ragalee man ñemee naa la te loolu baaxoo ci jigéen jigéen day am kersa jigéen day am yar jigéen day am teggin ci doxinam ci waxinam ci déglu néew su ko defee mu mën a mucc jigéen su amee kers sax góor ñi dañ koy ragal jigéen su amee kers mooy lekkaayam su ko defee daal la bàyyi xel waaye boo dëggalee bët nag wan na leen nag sama ndoxu ba jeex na kersa amul ma ci dara xale góor yi wan na la rek ne leen fii moom ku ñàkk kersa rek boo fu ñëwee fekk ñu fi kon jigéen ci moom la ñu gën a yaakaare na Seydina xam a ko wax kon nag nee na jigéen ju am kersa dana baax lool waaye dafa gën a gën a baax kon suñu mbokk jigéen ñu ngay di ñaan rek fa tabarakallahu lu ngeen yor ci kersa rek ci xoolin ci waxin ci jëfin nit su amee kersa dina jomb sol yan nii nit su amee kersa dina jomb dugg ci géew di xawli yaramam di xaw li suturaam nit bu amee kersa dina ñemee dina dina dina dina jomb sol yu bon yi waaye fa tabarakallahu ñàkk kersa nag moo war a soli nii ñàkk kersa nag moo war a tëggi nii ñàkk nag moo waral waxi ni boo xoolee léegi sax muy góor ñi muy jigéen ñi rawatina ñi nga xam ne tabaarakallahu ñoo ngi taasu ay wax yu bon rek ay wax yu bon ngay xataay ak a reetaan ana kersa war na jombal génne ci gémminam lu yàlla gërëmul waaye yaakaaroo ci lu dul benn junni wala ñaari junni wala fukki junni tax na ay wax wax yu bon yàlla dina rëbb malaaka yi dina rëbb ngir fukki junni yi ci ama juróom benn junni te yàlla bi saa saa waxoon na bu leen ba génn see wax ci la rafet munoo ci wax ci la rafet nee na nga tey sa gémmin kon ñoo ngi jégalu ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yàlla mi borom jàmm ku mu jàmm nga jàmm yàlla ñu yàlla jàmm li ñu daal di mukk te li ñuy suy Serigne boobu Serigne fa tabarakallahu di sët ci Serigne Babacar si waaye di doom ci maam doo xeetu si fa tabarakallahu di initiateur ki nga xam ne mooy tabax fii ci diggante li moom tele bees zawiya maam Serigne Babacar si waaye en même temps institut islamique Serigne si di wusi woo jullitu yàlla yëpp fa tabarakallahu ñu dugal seen loo xam ne bur yàlla la te nag ki dugal yàlla nag yàlla fay la fa tabarakallahu ñu ngi woo jullitu yàlla bàyyiwuñu kenn kenn kenn di ko ñaan yàlla yàlla gën a guddal faram fa tabarakallahu duñu daanati duñu nuyu suñu sopp boobu suñu xarit boobu bëgg alquran di sëriñ Xaadim Mbay ba borom sëriñ Xaadim Mbay di sëtu la daawar bi di ko ñaanal moom yàlla yàlla doon taxaw ko yéen yàlla doon sàmm ko bëgg alquran nag ñu xam ne alquran jaral kon fa barakallahu yal na yàlla sàmm ko yal na yàlla ko yal na yàlla wattu ko Serigne Khadim Mbaye sëtulub daawar boobu yal na yàlla sàmm la bàyyi la sa njaboot ba li nga bëgg si ñoom yàlla mottali ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam duñu daane mutti ñu ñu Kumba Kebe di ko ñaaral moom it yal na yàlla taxaw ko yal na yàlla gën a dëppale seen i wërsëg yal na yàlla lafal leen ci cat yal na yàlla dëgëral leen yal na cat seexlu leen i muy xalima di bët di làmmiñ yàlla nañ ci yàlla musal te yàlla jéem leen jàppale màggal seen i njaboot bu ñu dund dund dund ba jox leen ay béy màgg bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu Serigne Moustapha Sy responsable muxtafin fi duma fàtte moom Ousmane Sy sama Serigne Moussa Habib Kay nekk ba di ko ñaanal yàlla yàlla doolu guddal faran dama fàtte mukk sama soxna waaye di nuyu sama yaay soxna soxna maam Fatou di ko ñaanal yàlla yàlla gën a guddal faran ak mboolem koo xam yaa ngi ànd ñun ci émission bi di Salam Vision di al ilm wa taalim seen xarit seen soppe seen doomu ne al oustaz Ibrahima Diarra moo ko àndoon ak yéen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa Bienvenue sur Salam Vision.